ginnaaw biñ nuyoo ak ziara ñu ngi leen di jéggalu di leen baalu àq di leen baalu àq di jiital ci nuyoo bi kilifa yi ci daara ji suñu président ak suñu présidente ak sëriñ yi ci biir yëpp ak ustaas yi yal fay leen yiw ñu am yéen dellusiwaat ak yéen incha allah suñu programme bi ñu amal ak yéen xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa man xaala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'atu marratin قطت حتى إياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه بحري ومسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم من جانجل سحادث بي نقل ني فري أي باكار أك لو خمني كيب كوخ دي أبدلت بوغوه يالا سنين بروم فارس أي باكار من صلى الله عليه وسلم نينا من خال كيب كوخ سبحان الله وبحمده بعد بي سبحان الله وبحمده من النبي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كوخ ñaata yoon nga koy wax fii yow min ci bis bi mi atu marratin téeméer yoon jël sa kurus wala nga compté say loxo ba mu mat téeméer yoon moo xam ban heure nga ko def ci bis bi rek na ko def mu ni subhanallah wa bihamdihi baat bii di subhanallah wa bihamdihi képp ku ko wax fii yow min ci bis bi mi atu marratin téeméer yoon xatat xataa yaahu mu ni maanaam say des na ko far maanaam des na ko effacé wa in kaanat donte bàkkaar yooyee misla zabadil bahri comme puritum géej walla loolu nga xamante ni si mooy génn si géej buy dee du si dee vague yi dee dee dee yëngatu mel ni ay mel ni am purit fekkente ni si loolu noonu say bàkkaar noonu la toll képp ko nga xamante ni si wax na subhanallahi wa bihamdihi téeméer yoon ci bis bi mu ni sallallahu alayhi wa na des na far say bàkkaar donte bàkkaar yi dafa bari ba mel ni puritum géej mu ne xadis boobu nag imam Buxaari bi moo ko solo kon mbokk yi xadis bi am na solo moom yonente bi sallallahu alayhi wa moom mi xamante ne si moom la suñu boroom yónni woon ci jullit yi te du wax loolu xamante ni si ci ci bàkkenu boppam la wala ci coobare boppam la lépp loo xamante ni wax na ko suñu boroom moo ko waxloo te dem lépp lu mu wax rek loolu noo ne amul lam-laamee muy sallallahu alayhi wa sallam képp ko wax subhanallahi wa bihamdihi temere yonti bisbi yalla dina farsa e bakar donte bakar yo dafa bari ba melni zabadil bahri mune hadis boobu nag imam bohari moo ko solo kon nag jamono yiñ toll ni a mannaa ni lay amatul ndax lay amatul mooy bakar bari na te itam salallahu alehi wasallam nee na képp ko wax baat bi te baat bi nag jafewul muy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi nga jël si kurus wala nga wax ko téeméeri yoon ci bis bi moo xam heure boo ko wax nag baax na mu ne ko képp koo xam ne wax na ko téeméeri yoon yàlla suñ borom dina far say bàkkaar donte bàkkaar yooyu baree baree ba mel ni wuritum géej mu ni xaalis boobu nag imaam Buxaari yi moo ko solo yeneen yàlla tëng suñ jub teg na siraatul mustaqim musal na ci def bàkkaar te jéggal ñu suñu ay rëcc rëcc lépp lo xamanteni ci jumna ci ci suñu borom la li ci dëng suñu ñàkk xam la in uridu ila al-islah mastataar wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh